آه، بسم الله ندم تبين دو فقه لفنا فين تخمي وان دم بموي والجماد وهو جسم خير حي ومنفصل عنه إلا المسكرة لولا جماد والحي نينا بوكنا تي ينغ خمي انتني لابنا بتاي لوي دندو لما ندون لوي دندو لابنا مو خم دوم آدم الله ولا يمين لنا يعني جدا جانو بالغة دن جانو خوال حي وإن شيطان <laughs> آه. kon xay yi luy dund doonte sax lu mën a doon baax na ak façon yi dund yëpp buy dund laab na ab xaj ni ki noonu laab na xinziir al mashhur ba tey ni ki noonu ala kulli xaal tahaara alxayaat illa sabab la ci ak laab ci xeeti jur gi yëpp di leen fàttaliloo rek ne laabu gi ñu wax fii laabu julleeg yu mel noonu waaye laabu lekk ko incha allah danañ ko jàng ci yu dagan yi baabul mu baax yi yu dagan lekk ak yu dagantu lekk hmm. xay yi ba tey yi ki noonu kuy luy dund lu génn ci moom yi génne ci moom yi ñuy waaj wax laab na mooy ajja am yi mooy kon yi nga xam ne day génn ci kuy dund dam waxu lu ma la ay ronkoñam laab na kuy dund lii tekk ci ne ronkoñ ay ronkoñ laab na saxaaba yi daanañ déglu xutba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ jooy jooy yu metti te mosut a seetlu ne daa daaw kenn mosut a seetlu ne daa nañ jógaat di ko raxas te da nga daan gis koo xam ne sax ci biir xutba bi day bu dee ñu julli rek mu jóg julli xataba xataba naa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xutbatan wajilat minha alxulub wa zirifat minha aluyun ka annaha mawizatu muwaddi ala kulli hal saxaaba yi jooy nañ ba tàyyi ci biir discours xutba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te dañ daan bàyyi noonu rek kon damu laab na al wa araquhu ni ko noon ba tey aw ñaq nit ki aw ñaqam laab na nee yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mos naa dugg ci fas wo xane fas wo uri moy fas wo xane ne amutoon ak tek nee fas wo abu ko ñax abu talhata moo momon ca dawalon dawaloon na ko lool dawal bu metti ca bam wacce ken kenn ne raxasna ca dañ na fas wo mel nonu nga tok ci non non rek direct ko dawal ko xel yu mel nonu nee faw rek ku ne xamne na ñakna ñaq na wuñ ni bam fomp na ko wala raxas na ko noppi mu noppee. waa wa luaabuhu ni ko ba tey luaab luaab mooy lii génne ci gémmiñ rek moo xam bi bi génn yaa ngi nelaw wala bi bi génn nelawoo waaye nag luaab dañ ne ci gémmiñ lay génne waaye liy génne ci mbàq na nga xam ne day xaw a day mboq yu mel nga xam ne ñu baree bari dañ ne loolu moom sobe la loolu mooy bokkuñ kon du benn euh, kon luaab bu bus euh, yu mel noonu tax ñeex wa mu xaatuhu ni ko ba tey ñand xeetu doomu aadama nit luy dund ba tey laab na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee nañ daana ko dindil ñaari sëtam yooyu di Asan ak Useyn ci léeg-léeg daa dañ daawuñ seetlu ne dana raxasu balaa julli wala yu mel ne loolu mooy tegtale ci ne laab na ñi ko doon ba tey taq-taq yooyu génn ci nopp moom la ñu xorul usin ba tey wa bayduhu ñi ko doon ba tey ab nen laab na de nen bi laab na walaw akala najisan walaw akala najisan mu ne wal xayu nee la xayu luy dund lu mu mën a doon laab na مبالغه آه. انا تي نوال آه، حي ييب لا امنا آه، ولو اكلنا الجندون صاح دا فا نيك لو خانت داي ليك صوبي لين تي بروم خو خامي نك نين بو فكيه لو ليك صوبي لا كون خيتي نياخام اك نانغام اك نانغام وبيضه نيك نون باتاي اب نين وبيضه واخون نن كو الا المزيره وبيضه تي ديالو موي اب لابنا الا المزيره بام داس نين ñen bu nëpp nee moy bo xamne tok ne deret dafa nek ci biir wala dogu yap wala ciuj bu de wala yu mel noonu kon nak nen bu nebe nak mom baxut wal kharij ba'd al mawt muné yi ñu doon wax ne laab na mooy wa damuhu wa araquhu wa nangam waye nak bam dess batay al kharij yi génn ci damu araquhu mukhatuhu lo xamne dafa génn gi ba'd al mawt gina bam de lo su boobaa mom lolu sobena na bu génnee ci meddu ko loolu sobena na wala ba dul aadama yi ni ko noonu ba tey doomu aadama moo xam góor la wala jigéen bu fekkoon ne am na ci góor wala jigéen jigéen gi moo xam jullit la wala kaafir la doon sax kuy naan sàngar la muy lekk sobe borom xaw xam ne dañuy wax ne doon sax ab ak junne la wala yu mel noonu ala kulli xaal dagal na waaye nag illal mayit ba mu des doomu aadama joo xamante ne am ne ku faatu la kon soow ma nee na sobe lay doon waaye nag lii kañ lay nekk sobe mooy bu fekkee dañ ne meddum doomu aadama sobe la ci incha allahu taala danañ ko jàng léegi balaa yàgg. att bi nekk ci mbëddum doomu aadama eh, daa ngeen wax ne li gën a wér mooy laab na incha allah daañ ci indi ay indi layit hmm. ba nu xëyri am maa nag soowum lu doomu aadama taabiun day topp yàppoo rek soowum mu doomu aadama moog yàppoo ñoo bokk atte bu dee ci mu baax yi loolu laab na comme xar yeeg bëy yeeg yu mel noonu bu dee ci makruh yi makruh la kon sib nañ nga naan ko niki waaye nag ala ko laal boo doon julli bu la taxeet kon day teg la ci ne kenn so kenn soppal ngay baamtuwaat sa julli bu dee lu araama lekk ba tey niki noonu dafa araam loolu kon amut solo laa jege fenn loolu sobe la waaye wax ne imaam Malik daganal na fajoo soowum ataan mooy mbaam mu jigéen daga am nañu ko daan fajoo bu njëkk am na fa ko Malik daganale woon hmm. wala ba nu xëy na ci kon bu fekkee lu araama lekk la loolu sobe la. bu dee lu ñu siba lekk la soow ma dañ ko sib dégg nga bu dee lu dagan lekk la ni ko noonu ba tey loolu dagan la loolu mooy kon wala ba ma xëy ni ko noonu ba tey am saw wa aziratun dem àll min baax bi fekkee dafa jógee ci lu lekk loolu mooy ci xar wala ci bay wala ci nag wala gileem bawlu gis ngeen sawum gileem am na ñu ko daan fajoo sawum xar ni ko noonu azira li mu waroon a wax mooy rajiya ndax azira li gën a bëri ci doomu aadama lañ koy jël mooy dem àll yi doomu aadama war daa war na wax rajiya kon bawlu ak azira bu fekkee dafa jógee ci lu dagan lekk loolu dagan ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax daganal na jullee ci géttu ci gétt sallu fi marabidil xanam jullee ci gétt dagan na waaye nag dañ ne xeeti sawum xarak ba yeeg yu mel noonu fu mu tax sopp nañ nga raxas ko ndax mazhabu imaamu Shaafi dana moom sobe la seen saw meeg seen yooyu yëpp sobe la oo bawlul wa azlatun min mubaaxin nee naa leen bu fekkoon wax na waa rajiun moo gën waaye nag illal mutaxazi bi najis ba mu des nag xeeti rab yi ñuy wax ne seen bawloog seen yooyu dagan na ba mu des loo xam ne day dunde sobe mu wóor la wala nga jortu ko su boobaa kon lay génne ci moom féeg yaa ngi foog na sobe soosu ma ngi ci biiram rek loola sobe la illal mutaxazi bi najisin ba mu des rek loo xamante ni day dunde sobe wa xëy ni ko doon ba tey xëy am wàccu dagan na waaye nag illal mutaxayira an taam ba mu des rek wàcc moo xam ne dafa soppiku ba nga xam ne nirootut ak ñam boo ba nga koy lekk na meloon tàmbali naa jaune wala yu mel noonu wala yu mel noonu wa xay un kon illal mutaxayira an taam nga xam te ni kon na daal wala yu mel noonu loolu kon ba tey niki noonu niki noonu ba tey am na lu ñuy wax al xalas xalas mooy gàll defe naa rek xeeti gàll ba tey xilaaf la ci am ndax dana sobeewu wala du sobeewu safra am na lu ñuy wax ak balxam ba tey ni ki noonu dagan na ne safra ndox mu mboq la moo xam ne ci bàq lay génne balxam ba tey ci ba tey ci ci pud lay génne rek hmm. euh, safra o balxam wa maraaratu mu baax ni ki noonu ba tey lépp loo xamante ni lu dagan a lekk la wala lu ñu ciba lekk ba tey maraara mooy waxtaan wi baax na xam naa nag yi mi ci wuute xam naa moo tax mu andi ko foofu waaye nag kon jotul mu koy andi ndax loolu jàll na. ci masala yi jàll ci jàll nañ lu ñu rendi ak xaaj bu nekk ci biir wa damul la mu yusfax deret joo xamante ne ba tey tuurut mooy deret joo xam ne maa nga fa mu dëkk ci biir taq ci yàpp wala yu mel noonu deret jooju baax na mooy deret ji nekk ci yàpp wi wala deret ji nekk ci biir en roqee ci biir sidit yi fi mu dëkk loolu baax na lekk mën nga ko lekk sax boole ko yàpp wi moo tax kon xeet mooy moo tax nga gis léeg-léegi ñuy rendi seen xar yeeg yu mel noonu di ko lakk noonu directement rek ci lañ ko raxas ndax yàpp damul mas dam joo xamante ne moom xëy dam deret bi ñu tere mooy damul mas foofu deret joo xam ne dañ koo dagg mu tuuru wala yu mel noonu waye nak dañ ne ku jënd borom xam dañ nee ku jëndati yap ci marché sopp nañ dara raxas ko ndax xamoo deret jëj tax damul ma soxla ndax nit ñi ñak guñ ñak dégg fiq ñak ñàkk guñ ñàkk xàmmee tax na ba dara ja nak do xam ndax damul ma soxla wala du damul ma sox cheikh mohammed mahamadul xasan ibnu ahmadul xadim waaye ne masala moom wa xaslu laxmin yushtara min suuqihi qad saqahu gannun fi masuuqihi iz ghaliban wallahu jalla a'lamu min ad-dabil masuuxi laysa islamu kon dara ju mel yapu menan ko jënd ci àll bi sopp nañ nga di raxas wa damun deret joo xam ne lam yusfax damu lam yusfax nak moy bokku na ci deret joo xam dañ ko fekk ci bir xolub xar wala yu mel non waxuñ nak nga fekk ko ci béréb bo xam du place deret su boobaa mom taxut deret jooju baxut nak dañ nan rek bi ngui koy rend ci la aleeraat daw génn